secteur bi ñëpp xam nañ ni depuis 1960 ba tey moom rek moo nekkoon benn secteur boo xamante ni amuloon indemnité ginnaaw bi ñu dawalee nag ci nekk ci grève boobu ñeenti ay bés mu nekk lu metti lool ci sénégalais yi nekk lu metti lool ci acteurs yi ndaxte ku ne xam na ni pêche agriculture ak élevage 70 pour cent de la population sénégalaise ci secteur yooyu la ñuy yëngatu ku ne xam na ni tamit économie sénégalaise 15 pour cent du PIB ñetti secteur yooyu ñoo ko yor kon bu ñu banquee suñu loxo ñun ñi nga xamante ni ñooy doxal secteur boobu ñeenti ay bés ba juróom dana def ay conséquences yu néfaste yu néfaste looloo taxoon ngeen gisoon mareyeurs yi doon yëngu buuse yi doon yëngu industriels yi doon yëngu mu nekkoon lu metti ginnaaw bi loolu amee le gouvernement du Sénégal à travers le ministre de la fonction publique Gallo Ba woote woon ay ndaje waxtaan moom ak ay naataangoom ministre de l' agriculture Aly Ngouille Ndiaye ak Ali Saleh ministre de l' élevage ak Pape Sagna ministre de la pêche ak le ministre du travail ak ñun ñi nga xamante ne ñoo waral coow lu muy intersyndicale di secteur primaire bi ñu dajee yaakaar judd ñu defee ne waxtaan yooyu dina jur saafara ñun nag en tant que intersyndicale nekk ñoo xamante ne dañoo responsable dañoo bëgg jàmm bëgg liggéey bloqué secteur bi tamit taxuñoo jug parce que xam nañ natt nañ conséquences yi nga xamante ni moo mën a am ci suñu grève biñ ñu wooyee autour de la table sans aucune forme de pression ñu jël suñu responsabilité suspendre suñu mot d'ordre de grève suspension boobu nag dañ ko tegoon ci engagement yoo xamante ni état du Sénégal jëloon na ko wax ni lu yées semaine dana trouver ay solution jaarale ko ci benn commission technique boo xamante ni moom mooy def ay proposition wax suñuy jafe-jafe muy indemnité bi nuñ ci indee saafara jàll ci plénière boo xamante ni autorité politique bi dina ñëw teew validé la nga xamante ni moom lañ fa tënk malheureusement nag yaakaar boobu ñu amoon ba tax ñu suspendre suñu mot d'ordre de grève yaakaar boobu moo bëgg a yàqeeku yaakaar boobu moo bëgg a tas li tax mu bëgg a tas lu yomb la bi ñu demee ci commission technique boobu le directeur de la programmation budgétaire jiite ko ànd kook le directeur de la fonction publique ak ñun ñii di syndicat yi lañ ñu proposé du lenn lu dul indemnité yi ñu leen joxoon dañ koy dagg ci digg bi maanaam képp ko amoon téeméer juróom fukk ngay am ku amoon ñaar téeméer téeméer ngay am nag ñun ay patriote lañ yoo xamante ni nangu nañ réew bu amee jafe-jafe ñu teg suñu loxo moo tax bi ñu delloo ginnaaw waxtaan ak suñu base ñu ñëw ak ay proposition yoo xamante ni jàpp nañ ni yanu na maanaa te gouvernement du Sénégal am na suffisamment de moyens pour teg solution yooyu malheureusement tamit état bi nga xamante ni dafa jëloon engagement pour que le 25 muy semaine bi passé di talaata bi passé mu daje ak ñun ginnaaw bi nga xamante ni moom moo jëloon engagement boobu pour ñu tenir plénière yi nga xamante ni autorité politique ñoo fay nekk pour que li nga xamante ni commission technique bi waxtaane nañ ko ñoom ñu ñëw en tant que autorité politique en plénière waxtaan ci pour jël une décision définitive loolu malheureusement tamit ñu gis ni talaata bi passé réunion boobu dañ ko renvoyé reporté ko ni ñu alxamis bii di ñëw muy alxamis bii ñu génn wala ajjuma danan convoqué waat réunion bi pour que ñu mën a traversé crise bi parce que ñëpp xam nañ ni crise la ñuy traversé malheureusement également engagement boobu tamit ñu jëloon respecté wuñ ko te li ci gën a doy waar gën cee yéeme mooy du ñu jël sax la peine bind benn note officielle adressé ñu ko en tant que autorité syndicale parce que ay nit ñoo ñu wóolu mais dañuy toog ba ñun ñoo leen di woo téléphone pour ñu ñu wax ni reporté nañ ko te duñu jox benn motif bu valable li ci gën a doyaat waar mooy duñu wax sax ni kañ lañ jàppaat ndaje moom ginnaaw bi ñu seetloo ni véritablement ñii jëluñu tànku indi saafara ci suñuy jafe-jafe moo tax tey bi 10 heures jotee dañoo dakkal liggéey bi ñëpp xam nañ ni suba férié la àllarba alxamis ak àjjuma xàppati nañ ñetti fan yooyu muy 72 heures de grève yoo xamante ne duñ ci teggi suñu tànk duñ ci dellu ginnaaw tey duñ ci dellu ginnaaw ëllëg di yëgal kon ni acteur de la pêche yi nga xamante ni jotoon nañu seq ak ñoom ay waxtaan ñu xam ni lépp lu xew ci secteur boobu muy pêche muy agriculture ndaxte xam nañu ñi ñëpp xam nañ ñu ngi jëm ci certification yi des semences te bis bu ñu deful certification des semences yooyu semence bu baax ren du am ci réew mi ñu xam ni lépp lu am ci secteur primaire bi dans sa globalité c'est l'État qui est l'unique et le seul responsable parce que ñun li ñu waroon en tant que syndicat def nañ ko du ñu yem rek ci banque suñuy loxo